mooy dimbale ñi nga xam ne dañuy accidenté ci màggal Touba ñu leen di jël en charge di leen faj gratuitement loolu nag at yëpp ñu ngi koy def ci nekkuk sëriñ Sidi Muxtaar lañ ko sose woon ci ndigalam ak it ci abalu ki nga xam ne moo nekk porte-parole yoonu murit di Cheikh Bassirou Abdou Khadir ndax kuréel gi mu ngi soqikoo ci kuréel yi ŋànk màggal Touba ndax Nasru 18 safar dafay liggéey ci màggal gi ci ñi nga xam ne ñooy màggal si euh, ca ñu ci bari di am ay tolof tolof bu ñuy màggal si ci yoon wi lu mel ni ay accident ba moo tax ñu génn ci kuréel gi e, ci ay jamono boobaak léegi war naa mat juróom-benni at e, ñu ngi ciy liggéey kuréel gi nag ay sëti Sëriñ Tuuba ñoo ci nekk di ci liggéey ki nga xam ne moo ko jiite mooy Cheikh Abdou Ndam Atta mooy président bi ak Sëriñ maamoor Mbacke mi nga xam ne mooy secrétaire général waaye am na ci yeneeni kilifa yu ci nekk waaye am na ñoo xam it nag ay taalibe lañ am na ñoo xam ne duñu ay taalibe waaye ay soppeey eh, sëriñ bi lañu walla ay ñoo xam ne ay bonne volonté lañu ñooy participer ci kuréel gi di Nasrul Mustafa sama soxna yi ci kër gi rakkam bu jigéen bu dëkk kokki buy sëy kokki moo fi moo màggal si woon ba màggal gi desee lu mat ñaari fan am màggal si woon bi mu màggal see nag mu dem kër ñang fa yaayam bi mu demee kër ñang fa yaayam léegi xëy nag ne day ñëw fii nuyoo si bi mu ñëwee yendu fi ba julli takkusaan ba ba noppi mu xëy di mu gont nag di dellu bi mu duggee ci sareet yi dem ba fi tolloog jàkka ji foofu nga jaaroon léegi bi mu tolloog jàkka ji ba wees ko tuuti rek sareet bi ngardu suuf gi eh, eh, dagg saret bi cëppeelu ci tànk bi nii fii bi mu ci cëppeeloo xool li tànk bi dindi der bi set mu eh, toj toj bi foo ma toog fii ba yàgg ñu daal may woo sama téléphone ne ma daa am gan gu jóge woon sa kër léegi gu jigéen ma ne waaw ñu ne ma ñëwul fii daa gaañ ci saret yi daa daanu sareet yi ba ba ba gaañu gaañu ma dem fekk mu mu tëdd nit ñi wër ko tànk bi yëngal ko sax mënu ko. relation bi am euh, suñu diggante ñun ak waa Nasrou di safar relation bu vraiment relation bu baax la parce que depuis trois ans ñun ak ñoom ñu ngi liggéey si ñi nga xam ne ne ñoom ñooy accidenté yi nga xam ne ñoom la ñuy recevoir pendant le magal. ñoom ñooy jàppale accidenté yi si mbirum implant yi nga xam ne ne maladie yi moom la ñuy jënd donc mu nekk loolu loo xam ne dafa cher. te peut-être ne na hôpital bi mënu ko jëndal malade yi parce que am na benn gratuité bi nga xam ne ne moom lay defal muy gratuité soins yi ak yooyu donc am na yeneen garab yoo xam ne ne ñoom ñoo koy joxe hôpital bi mais li nga xam ne ne moom mooy implant yi ñuy defal malaat bi moo cher lool ba nga xam ne ne waa Nasru ñoom ñoo ciy jàppale ñi nga xam ne ne ñooy malade accidenté yi ñi jiite maanaam mbir moomu am di sëti Serigne Touba bi sëti Serigne Touba yi muy daayiratu waa Nasru 18 safar Euh, ba nu ñëwee yëg mbir mooma itam danoo daal di ne cas yan boobu taxawuñu ci euh, dal di mboolem loo xam ne war nañu ca muy diggante ordonnance ya ba ca feer ya ba ca taxawaay bi yëpp ñoom ñu daal ko jël engagement maanaam taxawuñu ca ba itam maanaam moom mu dellu ci ci sagoom ñu opéré ko def ca feer ya faj ko it faj ga nga xam ne moo ca waroon ba tey jii ñuy wax ak yow nii sëñ moom laa yónni nii loolee itam mooy wax ne euh, sit sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo def seen ab taxawaay ànd itam seen ak kuréel fas yéene yeesal itam li nga xam ne loolu la sëriñ Tuubaa jaante woon ak rasulullah alayhi salaatu wasalaam muy liggéeyal rasulullah alayhi salaatu wasalaam liggéey boobee maanaam mën naa laa seere ne ñoom ñu nga ca ndax mbir mi nga xam ne mooy am ci bésam bi euh, tey it mu lënkalikoo ak dogal sa borom ci coobareem fépp fu mu dabe ab jaam ci euh, diwaan bi am nañ ci ab taxawaay ba itam maanaam lépp loo xamante ni bii gàllankoor na ca di coono lu nu war jëf coono boobee ñoom dañ koy tegoo maanaam ngir jëf ko. nasul disu safar nag. foofu lay taxaw ngir képp koo xam ne nii yaa ngi jëm si Touba moo xam euh, foo mën a jóge waaye màggal gi yëkkati la bu la ndog moomu gaaree dinañu def lépp ngir faj la ba sam paj euh, àgg ni mu ni mu ni mu ware bu yàlla defee tamit euh, xëy na accident boobu mu doxee neneen ñu nemmeeku say bokk dem ba foofa jébbal leen seenu suñu suñuy suñu njaal ak ndimbal loo xam ne euh, lu ñuy def lay doon at mu jot at mu jot lu mu tuuti tuuti danañu faj lu mat fanweeri nit wala lu ko jege loo xam ñoo xam ne amuñu woon benn moyen ngir faju ndax euh, li tax muy jafe ci ñoom mooy euh, état bi dinañu def ay service ngir faj ñenn ñi nga xam ne dañ accidenté waaye dafay soins yi dafay am dafay limité implant yi nga xam ne nii moom la nit ñi bu ñu accidenté yi ñu leen di opérer yooyu dafay cher te duñ ko mën a jënd ca bokkul ci faj moom loolu ñun ñoo koy jël en charge faj euh, gratuitement euh, opérer nit ki te bu ñu la opérer ba faj la ba noppi dañ lay topp ba nga xam ne sa paj mi dana jeex ci ci ci jàmm nga xam ne duñ la bàyyi faj la rek euh, ci ci moment bu bàyyi la nga dem dañ la topp ba nga ba nga ba yàlla dimbale la ba nga mënaal sa bopp euh, li nga li nga mëne woon sa bopp. blessure yi sama tànk bi nii tànk bi daa dam woon ñaari dam dam om bi ak yépp toj ak fii fii xar sama fii tamit dagg ak sama baaram bi waaw. mooy instant biñ ma waree dugalal foyre yu noon te fer manqué après boobu lañ ñëwoon noon ci lañ jënd fer yi pour ñu feere ko ñoom waaw. kuréel boobu daal nun amal nañ leen ak cant te noo ngi ñaan sama borom mu dolli wéral seeni cër jëkke ko ci jëwriñ ji nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba ak mboolem rakkam yi nga xamante ni bii ñoo saytu liggéey boobu yal na leen fi yàlla yàggal te wéral seeni i cër te yaatal seen kàttan itam te dolli seen wërsëg ñu ciy dolli de wax ne la euh, liggéey boobu nag noonu ñoo xam ne ñoom ñoom lañ ko saytoo liggéey boobu la war mboolem koo xamante ni bii nekk nga ci kaw suuf te sa may la kàttan mbaa mu may la wërsëg mbaa may la ay pexe itam war ngaa tàbbal ci biir liggéey bi sa loxo tàbbal ci sa wërsëg tàbbal ci saw ñàq ngir maanaam liggéey boobu ñu di ko taxawoo woote gii nga xam ne moom la Serigne tubaab di woote ci sant gi nga xam ne moom la ñu koy santalee sun borom ci may yi nga xam ne moom la ko sama borom may te dara taxut ko nag mu may ko ko lu may xeet rasulullah alayhi salaatu wasalaam am na ay des fois situation yoo xam ne di nga ko gis les malades yi nga xam ne ne dañuy ñëw pendant même la màggal malheureusement amuñu sax lu ñu jëndee implant te pourtant du accidenté yi donc ñoom nasu dañ ciy taxaw def si li nga xam ne ne lépp moom moo si war topp malaat bi bu ñu mënee évacuer malaat bi sax Nasru daf rek daf koy topp ba fi nga xam ne ne bërëb ba nga xam ne ne moom lañ ko war a yóbbu. waaw fonds yi Nasru 18 Safar dañ ko tënk rek ci ni nga xam ne euh, li gën a bari ci yoon wi noonu lay doxe muy euh, ku ci nekk indi li nga am ndax bu ñu xoolee màggal gi noonu lay doxee amul dara luy financé màggalu Touba. donte rëy na lool taalibe yi ñooy dajale seeni alal boole ki nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba ndigal yi muy joxe ñu topp ko ba màggal gi mat ñun nag ci yoon woowu rek la jaar ñun ñi nga xam ne ñoo bokk Nasrou-Djour Safar di membre yi ñooy njëkk a génne li nga xam ne am nañ ko ah, jaay carte yi nga xam ne nii carte ndimbalante la ngir ah, dolli ko ci loolu waaye nag li nga xam ne moo gën a mag ci ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba xalif général bi lay jógee at mu jot moom dañuy jàppale mën naa wax ne li gën a bari ci li ñuy li ñuy jëfandikoo ci moom lay jóge depuis sëñ Sidi Mokhtar nekk fi noonu la doon def sëñ Mountakha Bassirou bi mu ñëwee tamit euh, daf ko yokk euh, ku ci mel ne euh, le porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadir dañuy da ci da ciy def ndimbalam ak ñeneen ñi nga xam ne ay taalibe Serigne Touba lañu ñoom itam dañ ci dañ ci participer euh, noonu la ñuy dajalee xaalis bi ndax xaalis boobu duñu ko duñ ko jaarale foo xam ne nii nit ki bu amee accident day jafe pour génne ko dañ koy dañ koy faj directement xaalis bi dañ koy dañ koy génne ci waxtu wi nga xam ne nit ki soxla na ko nga xam ne duñ dem di ko di di di di dugg foo xam ne nii xëy na di ko dugal foo xam ne nii xëy na day jafe moo tax ñu koy ñu koy doxale noonu euh, te Euh, li ci am ëpp solo mooy euh, hôpital yi nga xam ne ni ñoo ŋànk Touba muy Diourbel ak fii ci Matlaboul ni ñoom itam dañuy am taxawaay bu am solo boo xam ne nii danañ koy dimbalee nasru muy di leen informer ci li nga xam ne ni buñ ko soxlaa pour am ko ci malade yi nga xam ne nii ñoo accidenté nekk foofu. daal moom lañ mën a wax ci nasru 18 safar taxawaay la boo xam ne ne franchement euh, ñëpp apprécier nañ ko parce que gaawal na suñu liggéey trop. ci li nga xam ne ne moom bu pare prise en charge malade gaawal na ko safaru bam sa sin junnatun safaru bam sa rabbal bariyatil badan